président Macky Sall yàlla boole na ma Je taxaw nak ci kanamu Sénégal ne musuma doga a kenn mu neex mu wal nit ñi dafa neex wal dafa na ba ma wax lo xamni buñ ko netalé dina rus yalla nak moy dimbali nit parce que nous connaissons nekk di nga traverser des situations très compliquées kooku yalla mo lay dimbali ba ci yenn moment nga mën a sa sago maintenant question au mandat question de responsabilité personnelle question le bo xamni mom la concerné mom mi mu concerné waxagu ci waxagu ci s'il vous plaît ku nek ci ñun nak am nga droit am yene am nga droit am bëgg-bëgg connecte-nous. mais il n'est interdit à aucun Sénégalais de faire acte de candidature à aucun Sous constitution constitutions, la de le mandat est de 5 ans mais nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ce que dit la constitution alors monsieur le premier mais alors public B, may ma tuuti public B, amu leen droit ma baamtu ko ci wolof yéen yéen ñi ci kaw ak public B, amu yoon mayu leen ci assemblée bi ngeen tàccu ngeen wax waaw walla déet du dul toog dégloo loolu lañ leen di ñaan ngeen dégg ngeen def ko ko noonu merci premier ministre vous avez la parole alors vous avez la parole alors laissons les choses laissons les choses aller pourquoi vouloir se battre aujourd'hui sur qui doit être candidat qui ne doit pas être candidat Bon intérêt la pour le Sénégal quel sens la pour le Sénégal mais le bon ma ko bu de fi nekkee di wax dëppootul ak sama serment nee naa La une fille la taxaw élection mais yéen ñi ko gëm kay bàyyi leen moom bañ ko gëm tok japp sama ñaam pour liggéey c'est mon droit le plus absolu c'est mon droit le plus absolu mais xam lan mo bon japp nit ñi ya leen gëna a parce que erreur bobu ku mu dal rek joom nga mooy nga wax dara am sa réponse bëgg waaji wax loolu par force bu ko waxulee nga ne ko non non naa fekk nga mais plus de tolérance laissons le libre jeu sénégalais êtes-vous mën nañoo Canada? ku nekk candidat di nga conseil constitutionnel dinañuy afficher liste bi ne diw ak diw ak mais conseil constitutionnel mais c'est au peuple de trancher tout ça le peuple l'a régulièrement fait le peuple l'a régulièrement fait te musul am coow mais bu ngeen di exclure nit day mel da ngeen ko ragal honorable da ngeen ko ragal xanaa mais où est le problème je vous remercie merci